jërë ngeen jëf mbokki internet allo Sénégal Serigne bay saar lañ leen indil tey di sëtug sëriñ bay Sarr waaye du tuddeeku maamam Serigne bay Sarr wali bu mag ba mu donn maamam nag jël ci maamam ay jikko lu demee ni ki xam-xam wa lu demee ni ki yar lu demee ni ki yaraate ba ndax borom daara lañ leen tegal lañ leen tegal nii tey mbokk yi jëmm ji ngeen jàkkaar lool dafa yor daaraam di jàngale di jàngale xam-xam di jàngale alxuraan waaye di jàngale asraar mbokk yi ki ngeen jàkkaar lool boroom xam-xam bu fees dell la màndi loolu ci xam-xam ba réew mi kenn jaaxalu ko ci ndax dafay former ay kàngam mbokk yi jëmm ji ngeen jàkkaar lool moom moo ñu waxoon ca vidéo yi daan Willy Pandé mu waxoon ñu ci lu yéeme ba réew mi jotoon cee gis dara mbokk yi jëmm ji ngeen jàkkaar lool nee na ma Ousmane Sonko digganteem ak aji saar mënees na cee leeral dala ndax la procès le 16 bi. Mhm. na ci nit ñi teey. Mhm. na ci nit ñi teey waaye na ci nit ñi teey waaye nag li tax nit ñi war cee teey tey dañ koo seet si ngir mu leeral ko. jëm mhm. jëmmi jëmm ji ngeen jàkkaar lool nee naa leen day dinañ waxtaan xam-xam ndax moom mooy boroom càngat yi boroom borom njax yi waaye moom mooy boroom càngatu ubbeeku gu gaaw gi. mbokk yi ki ngeen jàkkaar lool mooy Serigne Mbaye Sarr dinañ waxtaan ak moom ci. seet gi nga xamante ni Barthélemy Dias seet si na ko sëñ Bass Abdou Khadre ndax moom mii mi ngi tuuba waaye dafa yor daara balaa boobu dañ koy bàyyi moom Serigne bay Sarr mu nuy mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan Serigne bi bismillah ahousu billahi min asheytaan rajimi bismillahi rahmaani rahim mhm. alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mhm. di nuyu bokki Allô Sénégal yëpp di nuyu waa Sénégal waaw di nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha. ndeysaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. amiin waay tey nuyu Serigne Ismaïla Sarr xalifab Serigne Mbaye saar ak jëwrinam mm-hmm. di suñu yaakaar suñu borom yàggal ko fi loolu te ànd ak wér. di ñaanal waa diaspora bi yëpp. Mm-hmm. di ñaan suñu borom def jàmm ci réew mi. Mm-hmm. di wax ne as di wax ne waa waa Sénégal. waaw ci gàttal daal. waaw maa ngi leen di wax asalaamaaleykum. macha allah wa rahmatullahi taala sëriñ bi. namm la bokk na ci li tax ñu ñëw mm-hmm. ndax gëj ngaa génn gëj nañ laa gis ci internet nga mm-hmm. tëju yor sa daara mm-hmm. yor ndongo yi di leen jàngal lan moo waraloon sax gëj génn bi waa Sénégal yëpp doon doon la waa xam nga gëj génn gi du ci man ci jaam ñi may soxla la ndax mbirum ñaan yàlla ak jot da cee bokkul ndeysaan te xam-xam bu fekkee ne da nga koo gëstu muy xam-xamu asraar mbirum ñaan yàlla dangay ngay soxlawoo ni la jaam ñi soxlaa dangay ngay soxlawoo sa digganteeg sa borom di wéet. Mhm. boo toppee aajoy jaam ñi nag bu yàggee yow li nga war a naal sa digganteeg sa borom war koo tàggat jaam ñi. Mhm. ak ñi la yaakaar mbooloo mi jëblu ci doo ko tal. te mën naa ne ay bis yoo xam ne sama bët bii gëmmul bët. ci ay xalwatu yu may nekk. ndeysaan. te yàlla dogal na it ñi may jot jëflanteel ci wàllu ñaan yàlla. Mhm. kenn koo xam ne mës naa jëflanteeg moom ci wàllu ñaan yàlla. am ci lu ma metti wala mu am ci lu ko naqaree. li tax ma génn naa it. waaw damaa xam ne liggéey bii suñu liggéeyee damay wax ne ñaan yàlla dëkkul fenn waaye am na fuñ ko yaakaare waaw fii nag dafay am. dëgg la moo tax ñu dellu siwaat waaw fas yéene jataay woon ak yéen. ndeysaan leeralaat leen li fi ne. waaw ak xam bi fi ñëwaat. Mhm. ak li fi nekk te leer luñ ko woon ñu leeral leen. macha allah incha allah macha allah Serigne Mbaye waxtaan bi gëm naa ne neex. dina mhm. xumb waaye xam-xam dina mhm. tax dama koy njëkkee ci seet. ak listixaar yi nga xamante ni yaa ngi koy def sëñ bi. waa buntum ñaan nag mooy seet. bunt bi buntum ñaan. te buntu ci lépp la baax. waaw. jaamu yàlla ku koy def ak xam daa war a jiitu ci yow bala ngaa jaamu yàlla. Mm-hmm. kon bu dee ñaan yàlla bala ngaa faj aajo yi nit faaw nga mën a seet. waaw mbiram. Mm-hmm. lan moo koy saafara. Mm-hmm. ba xam sarax la. ba xam benn faatiha nga koy bindal yàlla faj aajoom. wala benn falaxi wala benn naasi suñu borom faj aajoom. tawat nag boo ko seetul mënoo xam la koy faj. Mhm. seet nag bu dee ci cadre soxna dañ koy seet. Mhm. kër dañ koy seet. woto dañ koy seet. waaw barabu liggéeykaay bi ngay liggéey sax da ko war a seet. kon seet lu am solo la. lool listixaar tamit noonu waaye listixaar dafa gën a garaaw seet. bi nit ki ñëwee jamono. ba fi mu toll ba lim bëgg al dundam gépp listixaar da koy génne. allahu akbar te néewaa na ku ñuy listixaaral ay mbiram. waaw suñ borom defut ci ñun ñu am tegtal boo xam ne mën nañ ko faa ñaanale. kon képp koo xam ne suñ borom dogal na daal nga yittewoo dara ci sa mbir. ngir bëgg sa aajo faju suñ la saytulee sa mbir suñ borom danañu won bunt boo xam ne suñ ci jubloo rek. suñ borom danañ fajal aajo jooju sëñ bi dañoo ñëw fekk la tey ci sa kër mhm. waaye bu ñu la fekkoon ci daara ja mhm. dinañ wan mbokki internet yi mhm. sa néeg wa nga xamante ni fa ngay dugal nit ñi nga xamante ni dañuy ñëw di cangatu bëri nañ ñu jógee sax bitim réew ñëw cangatu delluwaat cangat yooyu laa bëgg tey nga dikkaat ci waa xam nga cangat googu ngay laaj waaw bëri nay façon dëgg la fii li fi nekk ci ay cangat ëpp nañ ñeen fukki cangat nit ku ne na la càngat gi jaral noonu laa lay ñaanale allahu akbar fi mu ne am na càngat goo xam ne bu la àdduna bépp liggéeyoon waaw ba nga tiit ci sa bopp ba yaakaar ne dara dootul deñ ci yow mm-hmm. càngat gii buñ ko liggéeyee ba noppi waaw nga ñëw fii ci kër gi sangoo ko wala ñu xooj ko ci lii juróom-ñaari fan jox la nga sangoo mm-hmm. kenn mënta tee ba liggéey bu deñ bu nekk ci yow day dañ cat fu mu fekk ci yow day dañ mm-hmm. cangat yi yi ci des yii nii. waaw benn bi ci wàllu alal lay dox cangatuk alal. ubbeeku ubbeeku ci lay dox. képp koo xam ne jox nañ la ko ci kàttanu yàlla kenn mënta tee ba suñ borom du la may wërsëg. ak loo umu umu umu. loo tëju tëju tëju yàlla xam ne cangat gi buñ la ko jox xanaa xamoo ne. waaw cangat dëgg-dëgg bu baaxee. waaw su ko nit laalee rek yëg ko. dëgg la cangat gii ci des. Mhm. boo bëggee maanaam bayra kepp. looy xëccoo ci àdduna wala foo jaar ñu xam la. Mhm. ba nopp bayra bu ànd ak wërsëg. sangat mhm. giyee ci gën a gaaw soo bi soo bi nag moom bu mujj bi moom. waaw sangoo léegi am xaalis léegi la ci kàttanu yàlla moom. sunguf la suma moo ñaane alxuraan boo ko jëfandikoo ba noppi sunguf sii ngay gis. waaw cuuraay la. waaw soo koy suuroo. Mhm. da ngay wax suñu borom ne ko yàlla xaalis laa bëgg. bis boobu ala kulli alin suñu borom dana la ca may xaalis. cangatu xaalis ni mu amee. waaw noonu la turu yàlla wuy mayee xaalis am. su ma soxloon benn lim man. waaw su ma tëjoo sama néeg bii ñetti fan. su ma mm. génnee ab am ko toog ma xaar war maa jox ab lim. Allah cangat dafa wér te cangat yu wér fi ne nag. dëgg la am na ci cangat yoo xam ne. waaw mag mi ma jox sekkare bi. Mm-hmm. li ma ko jox. Mm-hmm. mat na li ci ëpp laa lay wax de. bu ma ko doon calcul. Mm-hmm. mat war naa mat million. ndax damay wut sama trois cent mille ñëw jox ko mu ne ma dollil ma wut tisi ñëw jox ko mu ne ma dollil damay dem ba mujj gi li ma yor lépp dama koy jox toog waaw waaye càngat bu ma ko joxee man maa koy njëkk a jëfandikoo ñaata ñaata ñaata damay toog ñaari weer ba ñetti weer man su ma neexee mhm. du ma génn ci télé bi du def émission te sama kër gi day fees dell ki nit mhm. appel yi damay mujj du ma mën a wuy nit ñi mhm. ngir aajooy jaam ñi kon càngat ku ne ñaan amul da ngaa jëflantiwu te ko xam ñaan li tax nag ma dellusiwaat ci wàllu ñaan yàlla. waaw damaa bañul ku koy foyee damaa bañ kuy foyee wàllum ñaan yàlla. waaw moo tax ma dellusiwaat ndax métier la moo xam ne. Hmm. képp ko ci nekk nar koo foyee suñu borom dañ la ci jëlee. waaye suñ jugee ci càngat li ndax hmm. euh, bëri waa na ñoo xamante ne buñ la xamee ci cangat yee tax hmm. ndax am na ñoo xamante ni comme ni ma ko waxee sànq fu ne la ñuy jógee ci réew mi ñëw ngir sangatu mu mel ni càngat lu am la waaye am na lu am loo xamante ni tamit réew mi ñu la ciy bàyyi xel muy wàllu néew kàttan mhm. am na fas wala sax benn galañ goo xamante ni mhm. yaa ngi ko ciy liggéey di ko jox nit ñi waa xam nga néew kàttan ñu bari dañoo jàpp ne mënuñu koo faj waaw ñu bari tamit sunguf fi ñu yor da koy calmer waaw ñu bari tamit xeeti garab yi ñu amu ci doole lool waaw dafa am xeeti garab yoo xam ne nag mhm. mën naa saafara néew kàttan waaye du yàgg day dikkaat day dikkaat am na ci xeeti garab yoo xam ne su ma la ko joxee ba nga boole ko nawu nagu ndawalu nagu góor waaw ak gerte noflaay ba ma bind saafara jox soo ko lekkee dootoo tële ba koroog ngay faatu hmm? barkeb Sëriñ Mbay Saar ndeysaan am na ci genn goo xam ne ay reen la su ma ko joxe su ma la ko joxee nga togg ko benn bi tamit reenu ñàmbi lay àndal jëmmi ñàmbeeg hmm. nga jëfandikoo ko doo tële ba koroog ngay faatu bu fekkee rab daf laa sonal ba mënoo sëy waaw ngay gaaw wàcc wala sa soxna boo nekkee moom ab diir nga wàcc bu ma la joxee càngat gii ma lay jox ci wàllu rab jox la téere bi ànd ak deru gaynde nga takk bu dee rab képp moo la tee sëy di nga sëy ba doyal waaye nag am na bu leen man mooy ban mooy bi jamono bi bii nga xam ne dama mujj waaw du tàqalikoo ak moom waaw man yorum ak fas galan laa yor galan galan laa yor galan bii waaw waat naa ko ci yàlla ak yonent bi hmm. soo ko takkee da nga sëy ba doyal galan galan bii soo ko takkee ni nga bëgg sëyee waaw da ko sëyee ak sa soxna te dana yokk sa kàttan te da nga sëy ba jàpp ne sa soxna moo lay wax ne lan nga naan hmm. galan gi galan gi yàlla seere na oh. sëñ bi damay dem ci actualité. Mhm. waaye fa may njëkkee balaa maa dem ci actualité mooy nopp mhm. boole ñaari diggante dañoo waxtaan nga ni ma nopp. Mhm. néew na loo koy def du jàpp wala sax noobu mbooloo. koo xamante ni dafa bëgg ay mbooloo. nga nootal ko mbooloo bi ba fu mu wootee nit ñi wuy si ko. xam nga nopp. waaw mooy jàng xam-xam. waaw nopp ngay njëkk a gëstu. ci wàllu ñaan yàlla. noob nag boo nekkee ndaw nit ñi dañ la koy defloo. waaye man mbirum nopp suñ borom dama ma cee may. waaw loo xam ne maa ngi ko ci sant moom yàlla. Mhm. nopp nag ak noot. Mhm. ak wooj bokkuñu. wooj waaw ak noot. ak nopp ak nopp bokkuñu. bu nekkay bon. bu ah, maanaam bu dee wooj. waaw mooy nga am soxna mu won la ginnaaw. Ah. nga bëgg mu ñëwaat. am na lu ma lay jox. lenn da nga koy sangoo lenn da nga koy takk ci buntu néeg bi muy lang nga tudd turam ñetti yoon fu mu mën a ne ci àdduna dana ñëwaat. dem soob na yàlla suñu borom subhaanahu wa taala allahu akbar loolu mooy nit ku dem nga bëgg koo dellu si woo danga koy mooy wooj mu ñëw bu fekkee wàllu noob nag mooy kii bëgg jabar mm-hmm. ay mbokkam bañ walla ndaw sa bañ hmm? loolu moom daan naa ci teg ci àlliwe xànjir di tasxiir nit ñi waaye dama ko bax ah li may def dama koy def ci sensé bu fekkee nag waaw def naa ko mm-hmm. ba wax la ni ñu koy jëfandikoo nga jëfandikoo ko ndaw si xelam ak xolam du jug ci yow. xanaa xamoo ne yor naa nopp goo xam ne bu ko jigéen xasee def ci gémmiñam gii. Mhm. lekk ko. Mhm. mu raxasoo ko bu amee jëkkër. Mhm. wala góor ga raxasoo ko soxnaam. duñ wonante ginnaaw ba du nuy tukki. <laughs> moo tax ku ma koy jox dama naan la ba xam sa soxna la. ah d'accord. nopp googu ku ma ko jox. waaw yàlla seera na ne du ngeen wonante ginnaaw xanaa xamoo nopp nopp googu may joxe. ba nit ñi toppaan ma ci ba ma tàmbali koo joxewaat waaw dama koo jox nit mu ne ma dama am soxna su may bëgg mhm. damaa dem ay waajuram bañ mhm. ma ne ko fexeel ba ay waajuram dëgg ci wala ñu lekk ci mhm. wala lii ma la ko waxee nga jëfandikoo ko noona daa mujj ndaw si topp ko toppin woo xam ne la ma ca doon bañ daa mujj am mooy ñu jaxasoo ba ba ma mujj metti loola metti ma lool oh. kon noob sëriñ si koy mayee ak di ko joxe dañ koo xamul waaw bari waa na secret yoo xam ne da nga koy gis ñu koy maye wala dara. Mm. mën ngaa fay fukki million door cee jot. waaye doo gisee ñu koy maye ba nga def ko sirru bi day wàññiku waaw gis nga secret ak sàkkara ñooyam xam nga sàkkara. sàkkara mooy lu nëbb mooy mooy jëmmi ji góor li ko yàlla bindaale war ko di ko sëyi loolu mooy sàkkara. waaw mook secret yi xam-xam yii ñooyam dañ ko war di nëbb. waaw bu yaatoo rek doonatu secret. Mm-hmm. tasaaroo la tudd. tasaaroo te secret yaa ngi fi. yu wér yi yi nga xam ne mag ñi dañ ko daan def léegi gis léegi nga ñëw léegi ñu takk la xalaat nga tuur ndox léegi mu deñ mhm. wala nga suuroo léegi mu deñ mhm. mag ñaa ngi fi secret yooyu mu ngi fi ba tey dëgg la bu fekkee nag nit ki dafa nekk koo xam ne dafa bëgg noot nit waaw nga xam ne nit ki moom loo ko wax lay def moo xam sa patron booy liggéeyeel mhm. xam koo xam ne dafa am ay employé bëgg leen na noot lu mu leen wax ñu def loolu moom su ma la ko joxee ba nga jëfandikoo ko ni ma la ko waxee danga leen mm-hmm. noot moom foo leen jaarloo fa leen jaar loolu moom yàlla seer na ko seede yàlla seede yàlla loolu moom yàlla seer na ko macha allah Serigne Mbaye xam-xam gi yaatu na mm-hmm. moo tax bu ñu ko toppee damay ragal ni mm-hmm. ay émission yi émission yi émission lañ koy def incha allah waaye fa jaaree dugg ci actualité da nga ni ma Ousmane Sonko ak Adji Sarr seen procès bi soof na le 16 bi ñu jëm lan nga ci gis sëñ bi waaw xam nga loo xam du jeex waaw ay at ñu topp di ko wax. waaw ci mel ni mbir. waaw nañ ko bàyyi mu jàll. loo xam ne faat na fi ay bakkani bakkan. waaw te bakkan bu ne. Mhm. waroon naa doon ëllëg li war a doon dara ci réew mi. dëgg la bakkan yi faatu yëpp xalaatal li ma la wax bakkan yi faatu yëpp am na lu mm. suñ borom namoon ci ñoom ëllëg. waaye yàllaa dogal ci ñoom seenug dund fii lay yem. ndeysaan ndeysaan kon nag lenn loo xam ne saa su jógee mhm. lu tollook ay bakkan jug ci. Mhm. ngir yàlla ak yonent bi duñ ko bàyyi. waaw te projet bii ñu jëm. le 16 bi Ousmane le 16 bii waaw. projet la boo xam ne. waaw man de dinaa defee sarax moom. ndax lan sëñ bi. jàmm ndax réew mi. Mhm. fi laa dëkk. waaw fi laa juddoo fi laa yaroo te kilifa laa. waaw te mbooloo ma ànd ak Ousmane Sonko dama caa amul njaboot. waaw mbooloo ma ànd ak mag Sall dama caa amul njaboot. waaw. kon nag du ma bëgg kenn ko ci ñoom ñooy rayante sëñ bi man nag kilifa laa waaw responsable laa waaw sañ naa kama neex ma woteel ko waaw am naa ko yàlla def sama xol waaw waaye sama taalibe yi sukkandi ci man jibul dama ne leen bu ngeen ci àggee waaw ku leen soob woteel leen ko ndeysaan waaye nag ñi nga xam ne ñoom lañu fal waaw nañ bàyyi xel ne jaam ñi li tax ñu fal leen mm-hmm. daa am luñ bëgg ci ñoom bëgg koo am moo tax ñu fal leen waaw ngal la askan wii di xeex ngir ñoom mm-hmm. askan wii dayale seen bakkani ngir ñoom mhm. ngal la la ñuy wut ci ñoom nañu dimbali ngir yàlla buñ ko amee mhm. buñ war askan wi waaw man nag benn politicien mhm. jërul lu ma mare kenn man ndeysaan ndax da bari ñoo xam ne dama jëflante ak ñoom waaw ci wàllu baytin ñu won ma ginnaaw hmm? ñu ëlbatiku jaaraat ci samay ndaw waaw ma bloqué leen waaw waaw ndax def defub sëñ Tuubaa moo ne ci man nag ndeysaan oh. benn politicien du ma jaral yàq sama nawle. Mhm. du ma jaral xas sama nawle. Mhm. du ma jaral xis xis war ñàkk war ma samam nawle te duma ma xañ nag sama kilifa gi ma war a àndal. procès le 16 bi baadu da cee gis tur deret. jaamaarloo ah, ah. ba faat bakkan moo tax nga ni da nga ciy génnee sarax. man de man man man dinaa génne sarax. ndax li nga ci gis. ndax li ma ci gis. waaw bu ma ci génnee sarax. waaw suñ borom dana dogal. su jàmm mënta amit jàmm ji dana wàññiku loolu leer na man waaw waaye gis nga ci tartar dëgg da man déggoo li ma la dara loo xam ne jug na lu yokk fitna jëm ci mbirum Ousmane Sonko doo am coow amul mais Ousmane Sonko Barthélemy Diaz jote nañ ca mhm. suba sañu gis Barthélemy Diaz ñëw mhm. ci sëñ Bass Abdou Khadre mu mel ni daw làqu la <laughs> xam nga sëñ bas Abdou Khadre moom porte parole yoonu murid la. waaw ku soxla si Amadou Muntaxa sax ci moom nga war a mën a jaare waaw sëñ Bass daa amul sañ-sañ. nit ku ko soxla. Mhm. mu recevoir ko wala. waaw ce que. Mhm. kilifa sañ na ku ñëw nga beddi ko. déedéet. kilifa. waaw képp ku ko soxla war na laa mën a recevoir waaye nag la nit kay wax ak kilifa ga ak kilifa ga la tax muy wax ak nit. Mhm. yoonu kenn nekku ci. pour lan. bu sëñ basiirum sëñ Abdu Xaadar taxawee di wax ak nit ñu ne ko warta wax ak moom kàddu yoonu murit mënta jote ci sëñ Muntaxaa ci moom lay jaar boo soxloon Macky Sall waroo jaar ci premier ministre ba ba gis ko ba noppi wala wala nga ñaan audience waaw sëñ basiiru nag nañ bàyyi xel ni sëñ Tuubaa rekk ko ñor man moom laa xam ci moom ndeysaan bu fekkee nag ba Barthélémy Dias da koo soxla mhm. loolu ñoom ñaar la waaye nekkut ci cadre moom Mm-hmm. nit ñi nag jàpp nañ ne kilifa gu jaxasoo ak nitu politique rek. Mm-hmm. da am loo soxla ci moom. Mm-hmm. sëñ Bass lépp lu sëñ Tuubaa defal nit ku baax defal nag. loolu mooy li ma xam ci moom te muy dëgg ci man. te man damay doomi toppe nag. waaw ba addunay tukki ab taalibe bi sëñ Tuubaa laay doon. allahu akbar loolu yàlla dogal na ko. Oh. Ousmane Sonko yàlla moo dogal nit ñi bëgg ko. ci xoli jaam yi yàllaa ko dogal. waaw te mbëggeel gii suñu borom dogal si diggante Ousmane Sonko ak nit ñi. kenn mënu ci dara. dëgg waaye nag ñi nga xam ne suñ borom ànd nañoo ñoom wala man mi nga xam ne tey ci misaal am naa ak cofeel gu ma ëmbal Ousmane Sonko ci wàllu yéene yéene ko lu baax mm-hmm. lu baax loolu ma ko yéene mm-hmm. lu mu ci man di doon jàmm laa koy ñaanal mu jiitu ci waaw ndax am réew xëccoo ko taxul nga jot ci dëgg la bëgg falu taxul yàlla jox la réew mi dëgg la Macky Sall mii. Mhm. ba mu bëggee réew mi ba ko yàlla namee jox la ko jox. bu yàlla namee mu war fee jóge du fee jóge. jàmm ñëpp buñ ko fi bëggee na jóge te yàlla bëgg ko fee jële du yàlla nguur yàlla moo koy joxe. waaw feeg noppi wu fi du fi jóge. nañ xam loolu incha allah rabbi waaw. macha allah Serigne Mbaye Sarr namoon nañ la lool sax tax. ñu ñëw seet si la sa mm-hmm. kër. Mm-hmm. waaye bëggoon nañoo fekk la ca daara ja mm-hmm. fekk la ca melokaan yi nga daan mel. fekk la nag ca njax ya fekk la ci digg àll bi. waaye nag tey nammeel gi ñu la namm tax na ñu ni mm. foo ne rek nañ la fekk donte que sa kër la mm-hmm. moo tax dañ lay bàyyi nga tàggu mbokki internet yi nga xam ne ñoo lay seetaan te nga xam ne ñi ngi dem ñi ngi ñëwaat nag sëñ bi incha allah sama xol sedd na lool ndax fi ngeen ma fekk dafa fekk ma nekkoon ci xalwatu fan yi ba génn wallaahi ñëwoon ci njaboot gi nemmiku si leen ndeysaan yàlla dogal ñu jokkoo mm-hmm. ñu yàgg wàcc émission bi suñu borom dogal ko tey man mm-hmm. leen ñëw leen waaw ñu def ko ci daara ji ci kër gi kër gi it damay wax ne man sama fépp daara la fu ma waay fekk. Mhm. nii nga gis sama jëmm. waaw nii laa mel. waaw ku may ñaanloo ci wàllu ñaan yàlla. Mhm. la war suñu ñaan yàlla dinaa ko def. ndeysaan bu dee koo xam ne bëgg falu ministre. Mhm. wala mu bëgg falu député. wala muy xëccoo réew mi wala mu ànd ak nit xëccoo réew mi. dinaa la ñaanal ba suñ borom def ndam sa digganteek ak loolee. waaye man àddina bépp laa fi nekkal. sama xol bii maa ko moom. sun borom dogal na ne gisaguma kenn koo xam ne ci àdduna jaral nga ma tayle sama bakkan ci réew mi. Mm-hmm. gisaguma ko. déedéet. jaamu yàlla te man ab sëriñ laa. Mm-hmm. su ma gisee dara loo xam ne war naa dal ci Ousmane Sonko dama koy génneel sarax ndax ab jullit la comme man. waaw te li ma gën a wax ne li ma dégg ñëpp wax mooy nitu daara la. Mm-hmm. bu dee lu war a dal ci président Macky Sall. su ma ko xamee mën naa ko ko génneel sarax te yàlla tax. ndeysaan waaye man sama teraanga. suñ boroom moo ko yor. Hmm. te defal na ma teraanga joo xam ne ba dina tukki di jeex. yàlla xam na kon nag wàllu ñaan yàlla mii. laa bëgg ñu ko def te yàlla rek tax. Hmm. te bañ koo sukkandiku ci wàllu bës wala wàllu daraja wala dara. Hmm, ñun yàlla suñ borom defal nañu daraja joo xam ne ba dina tukki di jeex. ndeysaan ab sëriñ. toppi wuñ ko lu dul yàlla. waaw lum la gën a bëgg lu dul yàlla. waaw na nga ko bàyyi. ñun yàlla rek lañ war a wax moom lañu war di def moom lañu war a digal nit ñi. ku nekk ci réew mi nag. waaw ku fi yàlla teg. waaw suñu borom ñaanal la ñu def la jàmm. waaw keneen ku bëgg a faluwaat. waaw boo faloo suñ borom def jàmm ci réew mi loolu rek moo ñu ñor. macha allah xeexloo wuñ kenn. xuloo wuñ kenn defuñu kenn lu bon. Mhm. ndax ñun ku fi mën a toog toogaloo ñu fi. yàlla moo la fi teg waaye nag boo liggéeyee noppal ñu noppal sunu njaboot boo liggéeyut sonal ñu sonal sunu njaboot mhm. kon yàlla ñu yàlla defal jàmm mhm. ak tawféex maa ngi sant ñëpp di jéggulu ñëpp képp koo xam ne kàddu yi ma wax nekk na kàddu yi dëpp wut ak sa bëgg mhm. na la wér ne ab jaam bu sukk ci kanamu boromam toroxlu mhm. di soññ jaam ñëpp ci jaamu yàlla mhm. di soññ jaam ñëpp ak jub te xam ne àdduna loo fi gis day jeex ba mu des ngërëmal yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi noonu mbokki internet yi aloo senegal ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg seen beneen émission jërë jëf